a wax dafa am rapport boo xamante ni bu IGE inspection générale d'État daf ko mhm. épinglé à hauteur de 2 milliards ci gestion bi mu nekkee conseil économique social et environnemental mhm. Et Mimi Touré boobu gis nañ ko ci biir tey sa Mary Niane mhm. dañ ko épinglé ci régime à hauteur de 11 milliards mais bataille tey justice tranché goul enquête bi defuñu ko mais tay dañ leen jël dugal leen ci biir alors que Macky Sall dafa newoon dembu am na ay dossiers yu mu teg concam te tay dañuy gis jomay le 3 avril bu mu defee discours à la nation dafa né lepp luy rapportu Cour des comptes OFNAC ak li di IGE dina ko tek ci table liggéey biñ ci wara def ñi def ko ci mais dañuy gis ni que rapportu Cour des comptes le génné ak rapportu OFNAC tay ñi concerne rapportu IGE ba tey jii dafa mel def ci tégar concam muy Mimi Touré ak Mary Teuw Niane non man je pense que ay nit mun nañ accuser mais ils sont présumés innocents euh, innocents bu fekkee justice dem na ba def liggéeyam ñu rétablir euh, wala ñu situer seen responsabilité dans ces faits Nous Sonko ak Diomaye garde leen bu boobaa man dina am taxawaay bu ma ci am mais jusqu'à présent c'est on n'a aucune preuve amuñu benn fondement boo xamante ni euh, mun nañ ci wax pour mun inculper de ces faits là donc jusqu'à présent man damay xaar ba justice euh, atté ci ba paré d'accord da ngay xaar ba justice atté ci mais barki dembu gis nga fi le premier ministre leader du parti Pastef li nga xamanteni il n'est pas habilité à le faire ci ay dossiers yo xamanteni c'est des dossiers judiciaires ñu am séparation de pouvoir exécutif législatif et judiciaire mu taxaw né mhm. carrément ñi kat dañu mhm. sàcc alalu Sénégal té batay ji jii mhm. ñu cour des comptes jébbal ko justice wala procureur woo leen ba mu ne dañ leen interdire ñu génn territoire bi te amul dara lu leen épinglé loo xam te ni teg nañ ci loxo wala justice teg na ko ba mu cité ci ñeent daw nañu tey naka nga jàngatee loolu. waaw man je pense que c'est tout à fait normal hein? je pense que ñoom egg nañ ci état bi. ils ont fait les états des lieux. ils ont vu que am na ñoo xam ne dañoo sàcc alalu réew mi donc nous, bu leen cité mom anticiper poursuite judiciaire yi nga xamanteni war nañ ko engager contre ces personnes. c'est parce qu'il a les preuves entre les mains il a les dossiers entre les mains donc amul dara lo xamanteni yakarna dina ko sañ a wax lo xam mom amu ci preuve donc ñi nga xam nous, accusé nañ leen ñom nañu porter plainte bu ñu fekkee des japonais, ne dañ leen diffamer nous ñu porter plainte Ousmane Sonko dina des preuve mais parce que mënañ une enquête. def ay à l'interne bo xamanteni ne du enquête judiciaire ba ñu gis nit ñi sàcc nañu. mais tey ni nga accepté les Mimi Touré ak Mary Teuw Niane présomption d'innocence alors que ñooñu seen rapport épinglé na leen ba ñu teg ko ci table bi ba wax montant yi lu tax mënoo ko nangulee ñi nga xamante ni seen rapport génnoogul ba ñu wax montant yi est-ce que c'est pas non ma rapport yooyu gisuma leen hmm? ma rapport yi ngay wax gisuma leen rapport yu Mimi Touré rapport bu épinglé Mary Teuw Niane ak Mimi Touré gisuma ko

yoon da laa war a teg loxo. que nga nekk ci wetu président Bassirou Diomaye Faye. Mhm. wala nga nekk président nga nekk ci wetu Ousmane Sonko. Mhm. il ne doit pas y avoir deux poids deux mesures. waaw donc justice bi dafa war a équitable. Mhm. ñun loolu mooy suñu xeex. nanguñu ñu protéger qui que ce soit bu fekkee euh, implication dans ces faits est réelle. ay am na ay preuves yu ko sous-tendre. waaw mais tey lan moy relou séparation de pouvoir ba exécutif di wax place justice est-ce que vous nga ni que tey loolu na ci rupture sénégalais yi ñoko constater constaté ça fait sept mois yaa en Europe xam nga li xew Sénégal yaa ngi koy gis chaque jour à chaque fois da ngay premier ministre di jël ay prérogatives yo xamanteni prérogatives président de la république là. parce que wax na fi dissolution assemblée nationale décret bi jomay moko mom wax na fi limogeage amin Aminata Mbengue ak Abdoulaye Daouda Diallo koko mom président Diomaye moko mom waxna fi li nga xamante manam moy motion de censure du am waxna fi poursuite judiciaire yi gis nga amna alors que lépp Diomaye moko mom non je pense que ñaari ñooñu kenn mënulul euh, limiter kenn ki joxe pouvoir absolu kenen ki parce que benn duo le sénégalais yi fal euh, Diomaye a été élu euh, ci la bannière de Ousmane Sonko euh, Sonko mooy Diomaye lañ ko falee non non dafa def coalition xam nga su demoon ci bannière Pastef mën nañu né ñom ñaar la mais bannière coalition jomay président Pastef ñëw yokku ci Mimi Touré yokku ci Abdourahmane Diouf mm. ki di euh, Girassi ñeneen ak ñeneen yokku ci bannière Pastef moy mm. Pastef tout simplement non buma né ci si bannière Ousmane Sonko mm-hmm. parce que ci campagne bi yépp Ousmane Sonko mon nekkoon mentor bi nga xamante ni moom la sénégalais yi ràññee woon la sénégalais yi xam projet bi buñ ko xamee ci Ousmane Sonko lañ ko xamee pas ci mhm. Bassirou Diomaye Faye donc moom moo porté le projet jusqu'à terme mhm. bon moment élection et finalement mon participé wul ci élection yi mhm. donc projet bu sénégalais yi faal projet boobu ci Ousmane Sonko lañ ko fay foofu laay donc bu ñu falee président Bassirou Diomaye Faye c'est parce que le président Ousmane Sonko a porté un projet def ci kent lay kàttanam ba sénégalais yëpp xam ko hmm. loolu moo tax tey Pastef mën a falu d'accord